asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamdi ko sàkku ci yéen tey nag su ngeen gisee fi ma taxaw ci benn mbedd laa taxaw mais maa ngi ci benn quartier bu nekk ci ndakaaru ñu naan ko Dalifort Dalifort nag bu ngeen ko déggee ah seen xel dina dem ci ay mbër rawatina mbër mu mel ni kan Kaaw Cissé mbër mu mel ni Kaaw Gourné ak yeneen i mbër ñu ngi fii ci secteur bi ah bëri nañ fi macha allah yàlla dogal nag am na ci koo xam ne ci ñoom ñoo ñu ma limb ak ñi nga xam ne sa tudduma leen am na ci ku nga xam ne dogal dafa dal ci koom bi loolu amee nag te ñun comme lamb rek lañ fi nekkal ñu ñëw nag bëgg gëstu pour bëgg a xam lan moo xew maanaam lu ko arrivé ban problème la am léegi nag ay xaritam defe naa dina ñàkkul dinañ leen gis ñàkkul tamit daal dina jéem a xam daal lan moo indi problème bi wala problème bi nu mu demee loolu nag fi may njëkkee mooy hélas Euh, defe naa comme maa ci mbedd mi te mbedd mi am na ñu ma fi fekk euh, non mbedd moom est-ce que no naa njëkk ci mbedd mi ma pare rek na njëkk ci mbedd mi wax ak ñu ma fekk ci fii parce que defe naa ne euh, ani ani bas ah, ah waaw ba tey waa Malika kilifa gi maa lay ziar. delloo ziar wér am nga jaam. bu baax a baax a baax. tur bi nan la. Malick Niang. Malick Niang. waaw. fii ñun fii ñu la fekk defe naa mooy Dalifort. waaw fii mooy Dalifort ku ñu kaw Cissé. waaw. waaw ah, parce que fii mas naa fee ñëw jël si fii Kaaw si sa interview. waaw ah, dëgg la waaw fii la ñu fekk. Euh, ah, maanaam euh, Kaaw anamu laa lay njëkk a laaj. waaw Kaaw de daa am ndog-ndog bu dal ci kawam. Hmm. waaw daa am ndog-ndog bu dal ci kawam buy ñëpp jàmm parce que foofu noonu jommul kenn. ban ndog-ndog la. ban ndog loolu dañ ko jiiñ agression. agression waaw dañ ko jiiñ agression te biñ koy jiiñ agression ñun ñoo ànd. man man ak moom ak bas bi bas mbaalu ak Moutar Sow ak suñu yeneen gaa ñu jëm màggalu Touba bi ñu ñëwee suba la màggalu Touba lañ ko arrêté woon ba léegi ñu ni daa am kuñ ko jaawaleel. kuñ ko jaaw ñan ñoo wax daa am kuñ ko jaawaleel. ñoom biñ ñu waxee jour biñ ko jour biñ ñu jàpp jour biñ ko jàppee ñun ñoo fekk ñuy dem waaj a dem màggali mu wékkoo saagam jour du ma ko fàtte fii lañ ko fekk mu tëdd amul paas pour man koy agressé sax dixaa di nga paasu Touba warulaa jomb moom mu ñu fekk ko fii mu ne amul paas yàlla xam na li may wax jour maag bas bii nii bas mbaalo ñu ne ko kanjam ñu kolo kolo la paas. luñ ko acquise ba man ko fa fekk mënoote ko. biñ ñëwee biñ ñëwee laaj leen dañ ne kii daa am luñ ko jiiñ dañ ko porte plainte fii nii moo doon agressé croisement Cambérène maanaam agri ki doon agressé diggante pont pont bi fii nii passerelle bi technopole bi ak tina lu Dalifort bi ñu ni Kaw Cissé la. Kaw waaw loolu la leen gendarme yi la ñuy gendarme yi wax. ñun tamit après mu ni dem leen ci yoon tamit boobu ba léegi tooguñu ut nañu avocat daw nañ fu ne waaw te pour man xanaa kaaw ak ni mel ci doomu dëkk bi nekk doomu Dalifort ñëpp xam ko xanaa doone ma day bàyyi ba guddi naan day koj doomu Dalifort di leen agressé bu Dalifort loolu xel nanguwu ko. dañoo toog ñu xëy ñu ni jàpp nañ ay kon ba def ko interview ba ñu ni fekk nañ ci moom liñ seetaan ci internet bi ñëpp ko seetaan ñu ni def nañ ci moom ay cinquante yoo xam ne moom moo doon agressé technopole bi mais kaaw xanaa koy agressé di nga am ci moom luñ defee kayitam parce que fekkee wuñ ko dara fekkee wuñ ko paaka fekkee wuñ ko jaay téere ngi nii fekkee wuñ bari fekkee wuñ ko sax téléphone bu baax Ibou Diop ah wala Baobab gars yi de Baobab lañu waaw Baobab la woon Ibou Diop da nga daan bëre yow man waaw dama doon bi ñu arrêté ci wàllum agression yéen ngeen ne yéen daal ci li ngeen jàpp da jàpp ne kaaw du waaye gendarmerie moom ca plainte dañuy jot ak enquête dañuy def moom la ñu téye ba maanaam ba defeere ko mu nekk ci kaso bi. waaw li nga wax noonu dëgg la Kaw Cissé man xam naa ko bu baax maak moom ñoo ànd bi ñuy nekk xale ba màgg di entraîné ndoo di bëree ndoo di dem ay mbapat Kaw premier combat am ba dernier combat am ñoo ko ànd mi muy mujj a bëre kii nu mu tudd Ndiasse mi muy mujj a bëre Ndiasse démb jóg ñoo ànd ba ndogal bi ko dal dal ko muy tànkam bi mu metti mu nekk si di faju di góor góorgóorlu mais Kaw Cissé du sàcc du agresse Kaw Cissé nit du kese la ñun ñoo doon ànd ñun sax ñoo ko mag mais nag yàlla mooy dogal loolu mooy dogal ndog-ndog di dal si doomu aadama bu dalee si doomu aadama da nga koy nangu dafa dal fu métti nag da fi nekk am ak magam ak ay rakkam magam yu jigéen ñi sëyi nañ moom mooy góoru kër gi moo nekkoon soutien de famille di liggéey di daw si lu nekk ak métitam di góor góorgóorlu bi yàlla yàlla dimbali ko mu dem ba wér commencé di entraîner magal Touba bi man yaakaaruma woon day dem ndax daf ma waxoon demul man bi muy dem yëguma ko man dañ maa woo téléphone ne ma téye nañ ko Maris ci laa dem Maris di seet ñu wax affaire problème agression comme ni ko gars yi waxee nii ki ñu wax lañ jàpp fi ay kon kooku moom agresseur la ñëpp xam nañ ko. yéen ko xam xam nañ ko ñun ñun ñu dëkk ci dëkk bi parce xam nga moo tax. da ngay dem ba ñun ñii sax guddi gi heure bi da ngay ragal a jaar noonu parce que boo fa jaaree yow dinañ la agressé wala ñu fekk la fa jàpp la ne agresseur nga comprendre nga li ma wax te kooku moo kaw si dañoo nduroo. ñun ñii ñoom ñoo doon ànd ak moom Maaro pour rajo yenn instant di ko di ko motiver ci yu bëri di ànd géej di entraîner mu abonné salle fii di entraîner normal bu ñu wàccee ñun ñëpp ñooy jënd suñu reer def suñu repas jënd cere xam nga. reer bu ñu reeree ba suur toog donnal ba benn heure bi ñu gunge ko mu ñëw tëddi si yàlla xam na ne li ma lay wax nii noonu la fa demee mun naa ci wax fii ba guddi parce que lu ma dundu la ak moom ñu def noonu di def noonu presque ay deux mois Magal Touba jege si bi Magal Touba bi ñëwee ñuy waaj bas mi xam nga moom dafa bëri nit mun na ko taaw nañ Magal yi taaw na ko non man moom mooy loolu dama dafa xaw a cate parce que na ko non garaawul coo jubul nañ la paasaaleel yow waajal rek ñu dem ba benn heure heure bi presque ñu ñëw fii mu waaj tax tax ay ay dëbësam affaire yooyu ñu dem croisement bi ñu demee ñu gis ko sœurs yi comme ça ni ñuy joobee noonu dañuy am wecc te moom parce que mun naa ne Touba la dëkk léegi mu ne coo ñu ne ko coo jubul léegi yow dañuy taxale fi benn wecc ñu dem añi bu ñu añee ay 16 yooyu ñu ñëw ñu demaale parce que yow boo bu doo gaaw a ñibbisi comme ni la ko Malick waxee rek wala waa du gaaw a ñibbisi mu ne waaw ñu ñëw añ si añ ko foofu muy tosee ci oto yi foofu mooy particulier yi dem Thiès ay Mbour affaire yooyu bu mu tosee foofu ba benn heure bi ñu ñu ñu ñëw ñu ko gaaw ñu dem mu ne waaw cooju mujj dem ñu taxaw ci arrêt ba mu mu ñëw di jënd di naxaar ma jënd crédit jënd crédit fuñ taxaw nii buum yi ñëw wër ñu ne dañ koy yóbbu ñu ne ko déet. buñ koy yóbbu yaa ngi taxaw maa fa taxaw ñu ne ko déet lan leen ko. lan lañ ko wax. non dañ ñëw rek waxuñ dara dañ ñëw rek ne dañ koy monate. kay wax nañ ne am na ci. pour boo bu dee dëgg dëgg bi amul loi. barti Rasulullaay amul loi. fii lu ne mi am justice. non non fii Tumba am nday ak. pouvoir législatif pouvoir exécutif nga ne amul amul yoon. ay jour boobu bu amul woon nu mu demee ak danaa yi ñu ñaan parce que mun naa ne dañ ñu nax parce que Babacar ñun boo ñu gisee xam ne fii radal amu fi. yaa ngi dégg parce que duñu ànd ak nit ñu koy ñu koy minimiser di ko jaay doole suñu baxan di ko fekkee ni mu demee la mooy commandant bi ci bopp moo ñu nax moo ñu iri carrément nañu kii li tax ñu koy yóbbu mooy dafa am lu ñu koy laaj. amul benn problème dañ koy laaj bu ñu laaj bu du bu dee du moom dañ koy bàyyi yéen na seen xel dal ñu ne ko mais mun nañ ànd mu ne non munu leen dugg ci oto bi waaw mais mais ba tey daaxoor nañ mu ne ba tey daaxoor nañ mu ne munu leen dugg ci oto bi mais mun leen mun leen topp seen ginnaaw ngeen ñëw yaa ngi bi ñu ñëwee avant sax ñu koy ñu koy yóbbu bi ñëwee bi ñu koy monote ñu ne duñ ko monate commandant bi li ma la teral noonu mu expliqué mu wax loolu ñu ne noonu nañ bàyyi mu seet nañ ànd ak ñoom dem biñ demee dañuy ñëw rek suuf ci bunt bi rek commandant bi tëj porte yi ne yéen ñii laay waxal bu fi teen dugg man ci boppam comment ak bas mi ne ko yow boo ñu waxoon lii kii du ñëw fii xam nga man mënu ngeen mu dem fa nag parce que réew mi daa am yu bu demee woon noonu bu wër na yàlla du dem waxati lii dem ñun ñëpp la ñuy boole yóbbu bu boobaa toon mënum ku mu jël si di nga wuyu ji toon ñun ñëpp lay lay boole yóbbu mais dañ laa woo kay wuyu ji rek dëkk bi amul yoon pour pour ma wax la dara lu pendant deux mois ñu ak moom ñooy lekk ñooy nekk liggéey bi mu doon liggéey da ko bàyyi mu ne pour rek wér na dañu ñëwaat ci làmb ji ñu ne ko bàyyi lépp reer dañ koy dañuy jënd ñu rafaa bu doy reer amul problème boobu totisel ko mu muy abonné salle di entraîner normal ba ne ci état commencé entraîner normal ah soo xamante ne yow pendant deux mois say say xarit mun amaane sax moo ñu mag mais ñooy ànd ah ñoo lay jëndal reer surtout dina adressé ñooy nekk ba zéro heure ñoo koy gunge ba fii mu tëddi. te yóbbu ni taxañ te deful la deful dara. defoon dañuy dañuy xa ne def wala wala li may wax nii damay rus taxaw di ko wax parce que yàlla moo ma tiim deful dara li dañ ko jaay dañ ko jaay ko jaay doole. hélas fii mooy kër ñoom Kaaw Cissé en bas. wax nga dëgg asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar kilifa gi ñu ngi lay ziar ba am nga euh, mbokk mi maa ngi lay ziar. na fi la de naka yi tey nag. sant borom bi yéen a ngi si jàmm. tur bi nan la. man Baye Waly laa tudd. Ah. waaw. man loo bokk ak sama doom la. man maay nijaayam kii sama mag la. Ah, yaayam sama mag la. ndax sunu ñaari yaay. yaayam moom ak sama yaay man ñoo bokk ndey ak baay. yaayu Kaaw Cissé ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay yaayam mi kii daanaka man mooma ma yar. kon nu mbir mi noo ko dunde metti ma lool ba pare nag jëlee ci mbetteel ndax xam nga tamit nga yar nit mu juddoo sa kanam ba màgg sa kanam ñu jékki-jékki rek tuumaal ko benn mbir moo xam ne musoo ko xam ci moom bu doon yow dina la bett loolu daal man yéem na ma lool lool lool ci moom ci mbir mi liñ ko ne daal dafay agressé ñun ñi ko nga xamante ne sunu doom la daal xamuñu ci moom loolu xamuñu xamuñu kook loolu mbirum agressé déedéet. kilifa gi ziar na. ñu dellu ziar bu la. tur bi Matar la Matar waaw Matar Sow waaw. mbirum kaaw mi am na loo ci bëgg a wax. waaw parce que mun naa si wax lu bëri ndax fekkee naa lépp ndax bañ koy jàpp suñu kanam la waaw avant loolu kaaw ñun ñoo ko doon jox reer ñun ko xam naa ne xanaa kuy agressé ñun duñ ko jox reer ñun ñii bu ñëwee bu demee entraînement ba ñëw ñun ñooy cotiser ñun ñii ñooy cotiser xaalis jëndal ko cere mu lekk ñu toog foofu naa ataay ñëw gunge ko mu ñibbi fii. que te ñoom heure bu ñuy wax heure boobu lay agressé heure boobu kaaw mu ngi mu ngi saal di entraîné ay vingt une heure vingt mu ngi saal di entraîné te heure boobu bu jógee foofu day sangu ñëw si ñun bu ñëwee jël jëndal ko reer mu reer mu dem tëddi léegi heure boobu nit ki nan lay mën nekkee foofu di agressé tamit am na loo xam tamit dafa yenu maanaam dëgg la police dañoo ñëw si ñoom kalaame leen dëgg la ñoom seen liggéey la ñuy def quoi te li ñuy def yoon la bu ñu la waxee bu ñu la kalaamee da nga ñëw seetandoo lépp waa bu bëree te moom dafa waaw de foog loolu d'accord nañ ci quoi mais commandant bi li mu wax te moom benn ndigi boo koy arrêté da nga naan lii lañ arrêté mais moom ñëwee waxul dara dañoo ñëw rek cercle ko pamti pamte ñu ne noo du dem bas mi ñu ñu ñu ne noo du dem commandant bi bëgg a jàppante ñu ne ko noo du dem parce que foog ngeen wax ñu lan lan la def ñu ne non déedéet amoo loo leen wax da ngeen day dem ñoo noo du dem si la affaire bi commencé bëri croisement bi commencé bëri commandant bi woo ñu mu ne dañ dañ koy enquête daa am lu ñu ko wax dañ koy enquête bu bu moom dañu dem. jël nañ jël nañ avocat magam bi jëloon na avocat mais avocat boobu tamit xam naa mooy loolu daal am yenn avocat yi moo xam rek mooy loolu quoi parce que loolu quoi xam rek suñu loxo jotul suñu ginnaaw quoi yenn yi mënuñu ko def parce que autorité yi ñoo ñu mën a jàppale parce que dem nañ ci ñoom jooytu ne leen lii moo ñu naqari dàppale leen kaaw mais kaaw doomu dëkk bi la moo doon neexal dëkk bi lépp ñun bu ñu dundee làmb kaaw Cissé moo tax kon dañ ko mën a jàppale te yàlla tax mais pourquoi doomu dëkk bi am. ba tey bi ma duggee ci kër gi ginnaaw jaayam kii defe naa ne mooy way juróom bu jigéen yaay booy maa lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. tur bi nan la. man yaay Cissé. yaay Cissé waaw. yow yaay mu mel ni sa doom tey mu ngi ci loxo yoon ñu arrêté ko ndax lan agression buñ ne da koo def fi nga xam ne moom mooy ci arrêt Dalifort bi mbir moomu bi nga ko yëgee noo ko dundee en tant que yaay ak doom. xanaa feebar rek ba léegi maa ngi ni ci feebar bi ba tey dañ ko jàppee ba léegi wéruma dégg nga kaaw maa ko jur du lu ma ko jur kaaw soxlawul alalu kenn kaaw ba muy dem Touba sa magam bu jigéen nekku fi tey mu nga dafa dem Dakar moo yëkkati junni jox ko fekk mu yore junni kese. muy génn àndandoog Malick mi ak Bas Mballo mi ñoo génnandoo ci kër gi ma ne leen dem leen ak jàmm ngeen ñibbisee jàmm ak salaam fi laa toog ba ay trois heures ci bëccëg Kumba Jaw bi mais moo ñëw laajte ana ki fekk kii dem na Touba ma ne ko kii dem na Touba mu woo sama rakk bi ba ci buntu kër ga ma ko rek Kumba lan la loo ci mëntul doon rek man bu leen mën nëbbu wax luy dëgg bi rek moo gën dégg nga ma dégg sama sama rakk bi de waxanteeg sama doom bu góor bi rakk kaaw mu ne kaaw de dañ koo jàpp mu nga gendarmerie bu fii waaw bu maris ñu dem laajte kaaw lu mu def ñu ne kaaw deful dara dee nga mu waat ma laajaat ko muy laajte kan moo ko convoqué ñu ne ko kooku yow mënoo koo xam doo ko xam loolu daal laa ci am bañ ko jàppee nag ba léegi ba tey kaaw mu ngi seen loxo kaaw du agresseur de du pël billaahi du lu ma ko jura tax kaaw soxlawul alalu kenn dalipoor ba dalipoor daj bu fekkee dañuy waxante seen diggante ak yàlla am nañu kaaw bu baax kaaw soxlawul alalu kenn waaw kon daal maa ngi ñaan ñoom Gaston Mbengue dégg naa Dimanche muy wax ci télé bi mu gën cee yokk jàpp ci Malick ci am tamit mu ngi wax 2 tamit lundi pa mardi passé taaluma télé fi laa tàngaay bi ma dégg ñuy am ku ma ñëw ne ñu ngi wax waxu Kaaw Cissé taaloo télé ma ne ko dafa tàng ma tëdd fii dégg nga kon nag ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaan ñu jàppale Kaaw Cissé fi mu nekk du palaasam dañ ko sosal kon nag Eh, waaw waaw maa ngi góorgóoru kay kon nag fi sama doom bi nekk maa ngi ci ay situation yu métti métti métti su ma soñoon tey day toog fii si sama wet bi maa ngi ñaan Balla Gaye nga xam ne moom ci xolam la ko bëgg mu jàppale ko Modou Lo tamit xam na kaaw see bu baax da daan ñëw fii ci kër gi dégg nga di seet si saaxo bu ñëwee fekk fi saaxo kon nag moom tamit mun na na jàppale kaw siise Ama Baldé waxi noppi xam na kër gi bu baax ma magu Kaaw Cissé xaritam la kon nag ñoom ñëpp nañu takku ñu jéem a jàppale Kaaw Cissé mu génn fu mu nekk jërëjëf maa ngi nag léegi nag ñoom Bas Mbaalo mii ak ñoom Yoro Kaaw Cissé mënu leen fay ndax jàpp jàpp nañ ci jàpp ba nga xam ne tooguñu benn yoon noppaliku ñu benn yoon ci problème mu Kaaw Cissé kon nag maa ngi leen di ñaanal rek ñoom yàlla fay leen rek. waaw kon jox nee nga nee Lo daan na fi ñëw nee nga Balla tamit ku. bëgg la en kaaw ku bëgg Balla. waaw kaaw Balla rek la bëgg ba ak a bëgg Balla. <laughs> Balla moom mos nañ ko koo wax benn bës nii ci numéro am ku ma jox numéro portable am mu woote sama rakk ji ne ko man la rakk Kaaw Cissé mu ne ko ndax Kaaw Cissé ñëw nag mu ne ko Kaaw Cissé de génnagul Balla góor-góor rek nga jàppale Kaaw Cissé mu waaw waaye ba léegi a waxatul dara numéro dama koy fàtte waaye boo ko woowee doo ko jot kii moo ko doon woo sama doom rakk bi xadi waa mu ne ko dama nekk entraînement bàyyil ba ma ñibbi sama kër nga woo ma mu jéggi boo ko woowee jot waaw Aliou mu wax. trop yaay booy waaye nag yàlla ay dogal. yàlla ay dogal waaw dogalu yàlla rek dogalu yàlla rek xëy bu waree jeex dina jeex waaw. soobee yàlla nit du ñàkk lu mu amul. Mhm. parce que ba muy xale ba tey nekk ci kër boo dee jël kër dinañ ci xam dara boo jël dinañ ko xam parce que nit ak jikkoom du deñ ndax boo nekk ci kër di jël yàgg yàgg da nga ko teg portable wala dara nga jël ko kaaw du jël 100 francs jàmbur mën naa romb fi alal jàmbur du ko xool te man ñu paañam laa yàlla rek moo tax may wax lii ñu ko lii ñu ko waxal nii dañ koo sosal soxla alalu jàmbur bu sul fanaan àll bu dul mu garde si fii lay si kër gi amul kenn affaire nag du tooñ dugg ci benn bagage boo xam ne yoram ñëw ci. booy depuis boobu ba tey yow gisoo maanaam demoo seeti ko wala yu mel ma seeti ko sama tante dafa réer bu yàgg ba tey mënuma amaat kayitu juddu pour dem seeti ko ba tey dew ma seeti jukk rak waaw moo réer bu yàgg après man boobu ba léegi dama feebar dañuy jàppee kaaw ba tey maa ngi tëdd ndax man affaire kaaw bu daf ma tuusee lu ëpp ba bëri bañ ko jàppee ba léegi maa ngi tëdd feebar fii ak buntu kër gi sax du ma fi yegg. moom ban saaru doom la. ban saaru digganteem ak yaayam. <laughs> sama turandoo papa boole ko ci. ma ko tuddee sama papa sama papa ko tuddee da kaaw ma jege xale yu góor yi su ma génnee sax ci mbedd mi dañuy naan ma mère bi dafa bëgg kaaw ba dof xale ne leen la looloo tax. Hmm. waaw defe naa kon mbokk yi dégg ngeen yéen ñi nga xam ne yéen ngi topp di ñu suivre li nga xam ne ni moom la ñu wax ay xaritu Kaw Cissé ay nitam nijaayam wax na yumpaañam ba ci waajuram waaw yaayam nag ah ku ko gis tamit wax dëgg yàlla sa yaram dina daw par rapport ak li muy dund waaye àddina moom moo tëdde noon feeg yaa ngi dund rek maanaam ndog-ndog yi day am yàlla ku mu teg tiis yàlla na may aw fit ak xol boo ko mën a dékku ndax li tax mooy tiis woowu jàppal ne ci ginnaaw mbégte ngi ci ginnaaw di ñëw te loolu la ñuy ñaan yàlla mu topp ci. def na tamit euh, benn appel maanaam lancé na appel moom mooy juróom bu jigéen en commençant par Gaston Mbengue suñu papa ñu koy nuyu di ko ziar lancé na ko appel. waa 2STV tamit nee na dégg nañu ciy wax loolu tamit defe naa ne du ñu bett ndax ka fa nekk suñu frère Modou Mbaye ku ne xam na ne day doxal làmb di ci liggéey lu am solo papam Bekaay Mbaye tamit kazalika naka noonu ndax euh, ku ne xam na ne tey am na fu mu yóbbu làmb fu sore sore sore ak ñëpp ñi nga xam ne ak suñu grand Malick Thiandoum nga xam ne moom tamit vraiment défenseur u làmb la ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ci làmb rawatina nag les lutteurs en activité may lancer appel Gris Bordeaux seen président ah ak les jeunes lutteurs même ñoom mobile ak yen ñëpp ku ci ne ngeen def ci lingeen ci war a def bu fekkente ne dafa laaj jàpp maanaam avocat lu mu laaj ak itam ñëw jàppale dimbali yaayam am na ci solo ndax it soxla na ko fi mu nekk nii maanaam ñëw dimbali yaayam soxla na ko loolu ñu ngi leen ci lancé appel Balla gay numéro de dégg nga maire bi li mu wax Modou Lo noonu amaanoon yéen tamit wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy lancé appel te defe naa ne di ngeen def lu mel nu ngeen ñëw jàppale woy juram bii parce que tamit soxla na ko fi mu nekk nii ah, ndax doom joo xam ne moom daf la daan dimbali te boo gisee situation bi ni mu demee nga xam ne métti na trop waaye nag yàlla na yàlla def jàmm yàlla génne ko ca loolu nga xam ne ci la ne génn fa képp ku nga xam ne yaa nga fa te bañ laa yóbbaat xel mu lay yóbbe ci loolu parce que tamit réew mi aussitôt tamit fi may jeexal rek mooy ñu xam ne tamit dina am ñu koy faral di wax mais man du ma ci ànd réew mi réewum yoon la ndax bu doonu kon réewum yoon kon maanaam anarchie maanaam lu neex waaye def waaye nag loolu amu fi mu wax dëgg yàlla am nañ justice am nañ exécutif am nañ législatif mu ñetti pouvoir yi nga xam ne moom moo ŋànk réew mi liñ ci wax nag mooy ña ña fa nekk di atte ak ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di technique nit ñi ci yoon nañuy seetal ne maanaam la maam da baax waxoon rek nañuy teg mbiri ci siraatal mustaqim rek loolu moo ci am solo ndax lu waay atte tey ëllëg di nga ko àttewaat képp koo waxal tamit la nga ko waxal tey bu fekkente ne jëfam la bu ëllëgee layoo day amaat ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na yàlla def jàmm tappe xol yi jafe-jafe nag mook doomu aadama dëkk feeg ñu ngi dund di am ay naqar di am ay tiis noonu la ñuy amee tamit ay mbégte di leen jox dig daje rek beneen yoon incha allahu rabbi